gi dem na waaye góor gi tamit mu ngi fi ndax eh, suñu ak yow ne su ngeen toge yak mom ngi ne góor gi mi ngi toog ak ñoom ne mu ngi yëg ni góor gi mo tok ak mom ndax li dalon njaboot gi ne li dalon njabot gi bi góor gi làqoo bi góor gi làqoo ba ñu ñëw ñoom ñëpp takkaat seen laxasaay ba ñoom ñëpp ñu takkat seen laxasaay and eh, ak yow and ak yow lañu yek ba def ko ne lañu yek ba def ko ne moom mii bi mu toogee nee na loolee njaboot gi yëgoon ñoom it loolu la ñu yëg ne ñu ngi ñëw di leen jaale li ñu bokk di leen masawuwaat ci génn àddina seen mbokk seen xarit aussi seen soppe di sëriñ Sidi Lamine ñas mhm. ne doonoon kenn aussi ci kër gi sant sëriñ bi. ne di la sant sëriñ bi. tànk yi ñu jóg nag dox si fii. tànk yi ñu jóg dox fii. tànku njaal la. tànki njaal la. xanaa ñu daal ci toftal rek. ne ñu daal ci toftal. yéene bi nga xamante ne am nañu ko. yéene bii nga xam ni am nañu ko. muy sunu tànk yi ñu jóg. muy sunu tànk yi ñu jóg. jëm ci élection yi. jëm ci élection yi ñu jëm. di leen ne di ñaan ngeen ñaanal ko. yéen de. yéen. njaaxaanaay ngeen tëddee. njaaxaanaay ngeen tëddee. ñëpp seen njaboot lañu. ñëpp seen njaboot lañu. defe naa noonu la ko Sénégal noonee la ko Sénégal xamee. moo tax ñu ne ngeen ñaanal ñu rek. moo tax mu wax ngeen ñaanal ko. yàlla yokk jàmm ci réew mi. yàlla ci boppam yokk jàmm ci réew mi. liy xew xew. liy xew xew. Eh, nit ñëpp am jàmm. ne ni ñëpp am jàmm. loolu rekk moo am solo. loolu moo am solo. di sant nag bu baax. ne ñu ngi lay sant bu baax. ci weer wu tedd wii ñu fi ñëwee. ci weer wu tedd ñu fi ñëwee. muy weer bi ëmb. muy weer wu ëmb. sa sa sa sa juddu maam. sa juddug maam. wa sallam. di sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ne fu ñu dem wax xam ni ñoom fu ñu dem wax ko. ne bis penc. ni bis leer na ni leer na ni. lu sëriñ am maqama maqama lu sëriñ am maqama maqama yonent bi lay déglu. nee sa mam rasulillahi rek lay déglu. ndax bis boobu. bis boobu. yàlla. yàlla. dana noppiloo ñëpp. dana noppiloo ñëpp. sa maam rek. sa maam rek. la nar a waxloo. la nar a waxloo. taxta arshu rahmaan. nee taxta arshu rahmaan. mu wax ko yaa Muhammad. mu wax ko yaa Muhammad. isfatu safa. isfatu safa. وسلتحت وخلت اسمع وخلت اسمع رمول منانغول منيكو يو صلى الله عليه وسلم رمول منانغول نيان ما ما مايلا نيان ما ما مايلا وخال وخال ما ديغلا ما ديغلا موم رك لاكو باي نيه سمام رسول الله رك لاكو ماي لول مو ماي سمام نيه لول مو ماي سمام سمامي تاميت نيه سمامي تاميت mosal na ci ay sëtam. mosal na ci ay sëtam. moo tax ñu ñaan la. moo tax ñu ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla. ngeen ñaanal ko yàlla. ñaanal ñu. ñaanal ko. yàlla mottali. yàlla mottali. sunu yéene. seen yéene. góor gii jóge. nee xalifa bii fi jóge. te jógewu fi. te jógewu fi. yal yàlla yokk leeram. yàlla na yàlla yokk leeram. mu law ci réew mi yëpp. nee mu law ci réew mi yëpp. ndax yéeneem moo doon réew mi am jàmm moo doon réew mi am jàmm yéeneem yéeneem moo doon réew mi moo doon réew mi ku fi yeewu ku fi yeewu sa xol sa xol di nekk ci yonent bi saasu su ne di nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waral dëkk yu bëri yëpp moo waral dëkk yu bëri yëpp ne mu ngi ci waxtaan ak seex bu léegi yi fi nekk yëpp ne ne dëkk yi fi nekk yëpp ci réew mi daal ko sanc ne ñu daal di koy sanc ci barke sa maam ne ci barke ci sa maam man tukki naa lu bëri moom tukki na lu bari gis naa aussi gis na aussi famille bi famille bi dayo bi mu am ci àdduna dayo bi nga xam ni am na ko ci àddina ak respect ak respect bu mat sëkk bu mat sëkk ko nit ñi jox bu ko nit ñi jox donc ñun kon moom fierte la ci ñun fierté la ci ñoom ñu ñëw bi ci kër gi ñu ñëw nag tab bi ci kër gi ziar si leen. nee na ziar si leen. boole ñu sëriñ bi si njaboot gi. nee sëriñ bi na ko boole ci njaboot gi. loolu daal lañ lay ñaan. nee loolu lan lay ñaan. ñaan nga nangul ñu ko. nee di ñaan nga nangul ko. bëggatuñu réeroo ak yow ci benn lu ñu bëgg def. nee bëggatul di réeroo ak lenn ci loo xam ni bëgg na ko def. itam am nañ ci yéene. nee na lépp loo xam ni am nañu ci yéene. laataa ñu koy génneeti. laata ñu koy génneeti. bëgg nañ ci waxtaan ak yéen. ne bëgg na ci waxtaan ak yéen. ngeen jox ci seen i xalaat. ngeen jox ko ci nag seeni xalaat. lii daal sëriñ bi. lii daal sëriñ bi. moo doon kaddu yi. moo doon kaddu yi. ñu ngi lay sant bu baax. ñu ngi lay sant bu baax. di la gërëm. di la gërëm. di yeesal suñu ne mu ngi yeesal cofeelam. ci yéen ci yéen. ne alxaqu min rabbikum. ne fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbooloo mi sëriñ bi ne mu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ne mu ngi nuyu Cheikh Alsane ne ak délégation bi mu ànd ak yëpp di nangu njaalam nee na mu ngi nangu njaalam. te nii laa ko bëggee woon tamit. te ne nii la ko bëggee woon tamit. ndax euh, fan yi paase. nee na fan yi paase. xat-xat la woon. nee xat-xat la woon. su ñëwoon nee na su ñëwoon. nee na jot bii ñu am duñu ko am. te lii nee na lii mu def nag moo rafet. sëriñ bi fii la toog. nee sëriñ bi fii nga toog fi la daan toog. di recevoir nit ñi. nee di recevoir nit ñi. soo ñëwoon ca sarax sa. nee na bu fekkoon ni da ñëw ca sarax sa. bisub gàmm jàll ko. nee wala bisub gàmm jàll leen ko. naam njàll mi dana jàll. nee naam njàll mi dana jàll. bàyyi ba lépp ne teg. waaye bàyyi ba lépp ñi teg. nga ñëw nga ñëw. ci ñëw bu rafet bi bu rafet bi. ndax ci fajar la ma Cheikh Abdou woo. ne ci fajar la ko Cheikh Abdou woo. su ma wooyee wooyu teel yow am na lu am. ne su ko woowee wooyu tegaloo day xam ni am na lu am. nouvelle bu neex lay doon wala bu naqari. ne nouvelle bu neex lay doon wala bu naqari. démb. ne démb. Cheikh teel na ma nee na Cheikh sëriñ Cheikh mi teel na ko woo. mu ne ah Cheikh su wootee ne mu ne ah Cheikh nag bu wootee heure bi problème am na. balaa may décrocher xel jàpp lu nekk. ne balaa muy décrocher nag xelam jàpp lu ne. ma décroché mu ne ma yëg nga xabaar bi. mu décroché ni ko ndax yëg nga xabaar bi. ma ne ko ban xabaar. ma ne ko ban xabaar. mu ne ma ah, Pape Diop. mu ne ma papay Cheikh bu Diop. papay Cheikh bu Diop. moo génn àdduna. moo génn àddina. dem dem ci heure bi daanaka ñu ngi ci dëj bi. heure eh, bi daanaka ñu ngi ci dëj bi. bi ci des. ne bi ci des. tey la anniversaire u. ne tey jii la anniversaire u. Baye bu Baye bu. mooy ki nga xam ne sama papa mooy ki nga xam ni papaam moom la remplacé. te nga wax ko ne mooy doom bay bu mooy doom ji mujj. nee bay bu mooy doom ji mujj. sama waajur suñu waajur. seen waajur. mooy sët bi njëkk a toog. mooy sët bi njëkk a toog ci sët yi. kon nag bis bi tey di ajjuma. ne bisu tey bii di ajjuma. ñuy dem ci ñuy dem ñuy jumaa nekk suñu kanam. ne jumaa nekk ci seen kanam. kon suñ ma waxee na nga mel ci yonent bi. ne nu ko waxee ni nga mel ci sayyiduna Muhammad. sallallahu alayhi wa gëm naa ko ah Serigne Mohamed Kounté gëm na ko. signature bi ñëw na ne bi ci boppam ñëw na. Euh, saa saa bu rafetee nii. ne saa su rafetee nii. amul amul daanaka. ne amul daanaka. du hasard nag. du hasard nag. circonstances yi. nee na circonstances yi. ñoo ñoo ñoo ñoo ànd. nee na ñoo ànd. joxe joxe résultat bu nee joxe résultat nag bu mel nii. njaal du ko gën a rafet. nee njaal du gën rafet njaal bu mel nii. Cheikh Alassane Sène. nee Cheikh de. ne yow kaa da nga da nga da nga loo xam ne. ne da ngaa loo xam ne. da nga cee njëkk nit da nga cee njëkk nit ñi. muy nag sallallahu alayhi wa sallam di sayyidina Muhammad. kenn mënu weddi loolu ne kenn mënut a weddi loolu. ñëw nag dugg ci programme boobu. ne nga ñëw nag dugg ci programme boobu. ni la man ñi ne kan moo la ñi weddi. te ni ma ko gisee. ne ñi ma ko gisee. Euh, wute woo wute woo ko. ne wute woo ko. da ngay teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ne yow da ngay teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. da ngaa yàlla da laa may. ne yàlla may na la. wërsëg wërsëg. nga ne nga ne na naa naa naa dem ci Carrefour bi. nee naa dem ci Carrefour bi dinaa mu bi. dinaa mu bi. bopp bi bopp bi. ki nga xam ne. ki nga xam ni su nekkul woon. su nekkul woon dara du nekk dara du nekk. tarixa du am nee tarixa du am. nga jël programme boobu nee nga jël programme boobu. teg ko ci kanamu nit teg ko nag ci kanamu nit ñi. même ku nekk feneen. ne même ku nekk feneen. ñemewul bañ ànd ak yow nag bañ ànd ak yow. ndax da leen a woo. ndax da leen a woo. li li tax nit nit nekk. da leen woo. da nga leen a woo. li tax li tax. nit nite nit nite. ndax saa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ne saa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. humanité amatul mais l'humanité amatul. su may wax humanité. ne buy wax humanité. waxuma nit nekk ne waxul nit ñi nekk ci àddina. mooy nite. mooy nite. li nga xam ni li nga xam ni. mooy tax mooy tax. nit nit nekk nit. nit nekk nit. Ah soppe yonent bi. ne soppe yonent bi. su ñëwee ci njabootu yonent bi. ne su ci njabootu yonent bi. jàppalante rek ne jàppalante rek ka fi mën a. jàmm rek ne jàmm rek ka mën a am. lii la bëggoon a wax lii la bëggoon a wax. wasalaamualeykum wa rahmatullah